di sant yàlla bu baax a baax parce que dem nañ ci jàmm tribunal dellu si waat ci jàmm loolu lu muy wone mooy euh, ñun duñu añitu fitna te euh, ku yee fitna Sénégal xam nañ ko te ñoom ñoo fi jotoon yee fitna euh, je pense il y a ci ginnaaw ba ñuy dem tribunal te même leader yëpp ñu ngi fii ñu ngi leen di gërëm leen di sant ñu ngi sant bu baax Cheikh Ahmed Tidiane Youm parti PUR Euh, honorable député Déthié Fall euh, bu PRP euh, Malick Gakou bu Grand Parti ak kii di président Ousmane Sonko honorable député di leader bu Pastef gis ngeen tamit Khalifa Sall ci tribunal bi donc je pense que ñoom ñëpp faisait ñoom ñëpp dañu bokkoon ci leader ñu ma gunge woon dernière fois ñu dal seen kaw jaay leen doole téye leen te loolu Sénégal ñëpp ñoo ko jotoon ñaawlu tey gis ngeen leader yi ñëw nañ ànd ak man dem nañ ci jàmm dellu si waat ci jàmm donc euh, loolu je pense que dina dina leeral xelu Sénégal yi que Sénégal ku fi yee fitna ak ku fi indi violence mooy nguur nguuru président Macky Sall euh, bu ci tegu nag mooy euh, ah Sénégalais yëpp gis nañ gis nañ lu ma yàgg a wax nee naa fii procès du fi am parce que procès bu mu am daanaka da ngeen di àtte lu ngeen mën a àtte mais li bëgg a àtte lu kenn mënul àtte loolu moom xaw ma fan la ñuy jaar ba mën ko àtte moo tax dañ ma convoqué waat le 2 mars su ma jumulee ah le 2 mars lañ dem wuti incha allah lu ma ci xaw a métti tuuti rek mooy su ci yàlla àndee incha allah mooy le 2 mars damay dem wuy ci en tant que maire de Dakar te loolu wax dëgg yàlla euh, mënoon na ñàkk mënoon na ñàkk parce que euh, nekk maire du capital ñu lay woo tribunal ci ay complot politique kooku dafa jekkul ci démocratie dafa jekkul ci démocratie euh, bu ci tegu tamit dafa jekkul ci ci ci ci Sénégal parce que Sénégal euh, ba tey bitim réew dafa am ñu jàpp ni Sénégal démocratie la euh, te je pense que loolu mënoon na ñàkk bu ci des nag dossier bi yàgg naa ko wax Macky Sall ñëw na ci kër gi ba xew-xew bi amee mu yëkkati fi ay kàddu wax que effectivement Barthélémy Dias dañ ko dañ ko tooñoon wax que Barthélémy Diaz dañ ko nar a jàppale wax que ndax sax que état moom mooy responsable ci situation bi parce que état moom moo protégé wul doomu aadama yi te loolu mooy euh, responsabilité am tey nag la yàlla dogal tey moom mooy chef de l'état kon moom tey <laughs> lii di waru garam xam na ko te état su tooñee su ma baat ci kaw état dafa am lu ñuy wooyee assurance mooy agence judiciaire de l'état parce que su nekkee mbir bi ay mbiru koppar daf ci nar a am état moo nar a jël responsabilité am xam na ni moom moo moo moo moo moo jalgati et puis mu daal di indemniser ku muy indemniser wante man man la ñu tooñ man la song man du man maay agresseur bi man maay agressé bi tey nag gis ngeen tribunal man dana ñëw taxaw tribunal man kese maay taxaw ci kanamu juge bi ak papu xale bi loolu wax dëgg yàlla loolu gisuma naka la ñu mën a àttee dossier bu mel noonu di gërëm ñëpp nag di sante ñëpp di gërëm tamit la conférence leader de Yewwi Askan Wi jërë ngeen def mbokk yi